ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar fa tabaarakallahu di jiital ci nuyoo bi sunu sëriñ sunu baay sunu xalifa sëriñ Babacar Sy Mansour fa tabaarakallahu di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam yokk wéram ba li mu bëgg ci kër maamam Seex Seydil Xaaji Malik yàlla defal ko ko ci daraji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la def dem ba Louga tabaarakallahu seeti sunu baay sunu sëriñ Cerno Bachir Taal fa tabaarakallahu di ko ziyaar macha allahu taala moom it di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam yokk wéram ba li mu bëgg ci kër maamam Cheikh Al Hadj Omar yàlla defal ko ko ci daraje sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu macha allah Thierno Hamidou Bane macha allah di ko ñaanal yàlla moom it fi mu bëgg a yeggale Safina TV tabaarakallahu yàlla na ko fa yàlla yeggale ci daraje sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu suñu directrice soxna Yuma Ba. waaye nuyu sama technicien alhaaji Samba si fa tabaarakallaahu moom mi nga xam ne su nga jotee ci image yi moom la ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla defal ko jàmm tey nag ñu bëgg a waxtaane benn góor gu ñu xam ci réew mi di Sénégal di waliyu kaamil di xutbu zaman di mawlaaya sëriñ Abdul Aziz si Dabbaax fa tabaarakallaahu kooku la ñu bëgg a waxtaane tey maam Abdul Aziz si Dabbaax wooy juróom mooy Seex Sidi El Hadji Malick radiyallahu taala anhu Seydi Xaaji Maalik ñëpp xam nañ ko ci xam-xam bi ci wilaaya gi macha allahu taala waaye ca bëgga sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ak ni mu yaree ay njabootam fa tabaraka allahu ba koo ci gis xam ne kii dëgg dëgg dëgg dëgg njabootu Seydi El Hadji Malick la way juróom bu jigéen di soxna Safiyatu Ñang nga xam ne fa tabarakallahu moom dafa bokk ci ñaar dafa bokk ci famille buur bokk ci famille sëriñ kon garmi piir la kon ñaar ñi ko meññi moom Cheikh Al Hadji ay garmi lañu soxna safiyatu nag jàng nañ ci l'histoire ñu ne tabaarakallaahu yàlla daf ko dénkoon ay njabooti jigéen mu toog ba yàgg mu waxtaan ak seex sidi xaaji malik ne ko man dama bëgg nga ñaanal ma yàlla donte ne benn doom bu góor la sax ma am ko fi ci kër gi sidi xaaji malik ne ko da nga may jox ñetti yëkk weexal waaw isa naaj isa naajeytumu rasul fa qaddimu bayna bayna yadaykum naj bayna yaday najwaakum sadaqa loolu la yàlla wax fa tabarakallahu mu ne ko jox ma ñetti yëkk waaye boobu Sidi Xaaji Malik ca kasfom ba yàlla xamal na ko xamal na xamal na ko ne kii dina am ñetti doom yu góor mu ne ko jox ma ñetti yëkk ñetti yëkk yooyu nag fa tabarakallahu benn ba mooy alxaaji Mansour beneen ba mooy Cheikh alxaaji Abdou beneen ba mooy Mam Habib si fa tabarakallahu Cheikh alxaaji Abdoul Aziz si Dabbaax mooy borom la 14 septembre at moomu tabarakallahu asamaan see njëkk wane ne nit dem na asamaan dafa niis macha allah muy taw fa tabaarakallahu ah mu nekkoon bis bu tiis ñu ñàkk nag wëlli yu boo xam ne amaat ku mel ni moom ah dootul yomb de macha allahu taala yàlla nag wul dara waaye nag dootul yomb nag macha allahu taala ndax sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anhu bu mu fi bàyyi ko alxaaji Mansour inspecteur tariqa bi borom ñaari kaala yi bàyyiwu sëriñ Babacar Si Mansour mii nga xam ne tey mooy xalifa bi toog ci xilaafa gi ñeenti fan la fa am fekki magam avant muy dem nag ci la def qasida bi ndokkalee ko tabarakallahu cheikh alhaaji abdou aziz dabbaax waaye nag trancel ko yoon wi nga xam ne ca la war a jaar mam Mansour ne ko abdal azizi airni al qalba usika wasiyatan anka o oh. ne ko abdal aziz yaa abdal la waaye daf xasafiyaa gi wa xasfu yaa yajuusu fi nida mu ne ko yow Abdul Aziz yow Abdul Aziz abal ma alqalba sa xol uusika ma dénk la wasiyatan ndénkaante ndénkaane boo xam ne tashfi anka kulla ma fiika dana saafara lépp loo xam ne nekk na ci yow boo feebaroon dina la faj ba nga wér boo jagadi woon dina la jagal macha allahu ta'ala mooy rek dama dama la koy dénk nag fii za zamani lazi ci jamono ji nga xam ne amal fasaadu bihi maanaam yàqute jamono gi dafa lëmbe dafa tasaaroo ci àdduna te ñoo ñëpp teg nañ ci seen bët waaw jamono ñu wax dëgg yàlla gaa ñëpp xam na ne jamono ji moom tabaarakallaahu la maam Sidi Xaaji Malik waxoon wa ma kaana ayban saara xusnan tawaafuqan laqad jalabu liddiini kulla balaayi alaaji Malik neen la ñaawoon lépp mujj naa rafet léegi ñëpp rafetal nañ ko rafet mu ne ci dëgg-dëgg nag mu ne diine ji indi nañ ci lépp lépp luy sànq rek indi nañ ko ci biir diine ku xool fi diine toll léegi hmm? nga xam ne fa tabarakallahu diine jooy na waaw la sunu maam waxoon alxaaji Omar al Fuuti Taal ne li kulli qatilin naihatun yanaxnahu waaye nag wa laysa ala diini almuhaymini naihu ne na ku dee ku ne am nga ñu lay jooy di naqarlu sag dee waaye diine moom dee na bu yàgg te amul ko ko jooy Cheikh Alxaaji Abdu bokkoon na ci ñi doon jooy diine mu ne ko nag wala tara ahadan fiihi yusaafika te li ci gën a yéeme mooy jamono jii doo gis ku lay teg ci yoon jamonoy jayante la jamonoy joo xam ne boo jaadee yoon gaa ñu la teg ci yoon dañ lay jay rek bàyyi laak sa bopp loo wax ne ngonga bu ñu yeggee ci jamono jooju nag gisatoo ku lay wax dëgg du baax kon nag maa ngi lay tracel yoon woo xam ne buñ ca yeggee ah, na sa xel dem ci lii ma lay wax cheikh alxaaji abd nag jël yoon woowu macha allah taala mu ne ko fa gudda tarfaka laa tafxas axi abadan wala takun wala takunan tuaadi man yuaadika mu ne ko gëmmal sa bët bul xool waxin la fi jamono toll ku gëmul sa bët doo am jàmm mu ne gëmmal sa bët bul xool lu ñaaw mukk deel xool rafet rek wala tafas ay axi abadan te bul gëstu nag waaw bul di gëstu bul di kii parce que nit ñi boo leen gis soo boo leen gëstoo rek gis ci ñoom loo leen xeebee waaye nag wala takunan tuaadi man yuaadika e waaye bul nekk mukk di noonoo ku lay noonu waaw bul noonoo mukk lay noonu defal ñëpp ay soppe bëggal ñëpp amalak ak jàmm ñëpp bul jéem a xam kenn lu mu ñaaw la sax ba nga koy bul jéem a xam ne kii sama noonu la yamaleel ñi la bëgg ak ñi la sopp moo tax loolu dund na ko baax a baax a baax a baax ndeysaan sëriñ kër si Abdou mas naa dégg ma koy nettali mu ne dafa am benn waay bu ñëw rek tiim góor gi di ko xas di wax lu ñaaw lu ne mu wax ko nee na ma jóg nar a jëflante moom mu ne ma toogal góor gi continuer di wax lu ñaaw ma ne bërët bëgg a jógaat mu ne ma toogal boo jógaatee dinaa effacer sa tur ci njabootu Seydi Hadji Malick nee maa ngi toog mais am lu ma métti ndax waa ji li muy li muy yàq sama way jur wi Cheikh Alxaaji Abdou Baye ba waa ji wax a wax a wax ba yeggal ba géex ba ñibbi këram tabaarakallahu mu woo safara mu ñëw mu woo sëñ Babacar si Abdou ànd ak moom ñu dem marché mu jënd luy ravitaillement lépp luy teraanga rek mu jënd ko yëpp ci oto bi dag daal di départ nag wuti kër góor ga waaye li ci yéeme mooy bi ñuy dem ci yoon bi mu ngay jàng naan wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hadhin azim sëñ Babacar Si Abdou xam nga dafa dégg alxuraan bi mu dégg automatiquement alxuraan ji rek tabaarakallahu xam ne ne góor gi kenn du moom bi ñu yegsee fa tabaarakallahu ci kër góor gi mu ne ko sëñ Babacar soo xamoon ne fii laa jëm si ndax da nga ñëw mu ne ko ci dëgg dëgg dëgg dëgg soo xamoon ne fii nga jëm si du ma ñëw mu ne ko nag bagage yi nekk ci biir oto bi kenn du ko yenu ko dul yow damaa wérul waaye su ma wérul man sama bopp maa ko yenul sama bopp mais yow comme sama doom nga sama njaboot nga kenn du yenu ko dul yow sëriñ Babacar moo yenu bagage yi di ko wàcceel góor gi di ko wàcceel góor gi ba bagage yi jeex Cheikh Alxaaji Abdou nuyoo dugg ci kër gi nuyu góor gi góor gi bi mu gisee Cheikh Alxaaji Abdou dafa tiit de si alxaaja abdi ne ko damaa ñëw rek ngir baalu la xàq ndax mën na am dama laa toñ ci yëguma ko kër góor ga ndeysaan dafa jooy ba tabaarakallaahu fala jaare nag doon nekk soppee cheikh alxaaja abdu moo tax mu ne wala tastawi alxasanatu yàlla moo ne lu baax du yemoo lu ñaaw mooy nag képp ku la def lu ñaaw na nga ko lu rafet mën na am bu nekkoon sa noon mu mujj ne doon sa soppe kooku na cheikh xaaja abdu daf koo réussir waaw moo tax alaaji Mansour ne ko bul noonoo mukk ku lay noonoo képp ko mosa noonoo rek def na la soppe moom Cheikh Alhaaji Abdou ci jikkoom ji rafet ja ca yaatoom nga ak ca mbaaxam nga ca woyoxam nga macha allahu taala te dis gann nag doon wëlluyu doon xutbu zamaan waaw doon xalifa cheikh ba pare woyofee noonu wàcce noonu seetetetet ku bëri woon na ci jaamu yàlla yi daan na wax naan bu ëllëgee bu yàlla naree tabbal xeetu Seydina Muhammad safara na yokk sama jëmm ji man Cheikh Alhaaji Abdou ba ma fees safara te mu jël ñëpp yóbbu ne aljanna gaa ñu loolu maqaama la de du ñëpp koy wax de ba mu ko waxee ba tey nag keneen waxu ko nag ah kooku ci toppandoo xam du ñëpp koy wax fa tabarakallahu kooku mooy Cheikh Alxaaji Abdou macha allahu taala waaye noonu la mën a mel ndax bi muy toll muy nekk bi muy nekk xale maam Sidi Xaaji Maalik taawu ko naan ko yaa uddati fi siddati in lam takun anta fa man yunqizuni min arrada yaa saaxibal fi'li alxasani naan ko yow mi nga xam ne jamono ji ngay tombeel jamono ju yàqu lay doon jamono ju lëj lay doon jamono ju doy waar lay doon waay waay bu dul yow ku muy doon yow mi nga xam ne loo def ñu ne eskay yow borom jëf yu sell yu baax yu rafet yi te boobu xale la waaw mën naa ay 3 mois 4 mois ci lay toll boobu ndeysaan sëriñ Babacar si yem si ne ko bàyyi waxaatal li nga waxoon mu waxaat ko mu bind ko chet tet tet tet macha allahu taala moo tax mag ñi xam nañu lépp tabaarakallahu alaaji Mansour ne ko nag laa tarfa an xutwatan illaa wa tarfauha ila allazi kaana anhu lbarru yajzika rikki waay sama rak maa ngi lay dénk bul seq mukk sa tànk bi dox ji jëm fu dul foo xam ne boo fa demee am fa ngërmande yàlla moo tax Seex Alxaaji Abdu musul dox tànki tànki caaxaan lu mu dox rek diine ji lay doon wala mbokk gi wala tabarakallahu mbindee fi dan na jël alalam jënd ay yére yu bari di ko séddale macha allahu lu ko nit mosa indil balaa ngoon mu joxewaat ko daawul denc dara kan demal Tiwaawan doo gis kër gu ne li kër gi Cheikh Al Hadj Abdou ko tabax lu ma am bokk na ko jaamu yàlla yi amul woon compte bancaire compte am mooy mooy mooy jaamu yàlla yi lu mu am jox na ko jaamu yàlla moom Cheikh Al Hadj Abdou tab gaa ngoog tab gaa tab la yaaram la bii Faris ah kenn melul ni moom yàlla nañu yàlla taaf ci barkeem. alaaji Mansour nag ne ko lil mar'i la shakka axlaaqun tadullu bihi ani su'aali kon fa axsin min maanika mu ne nit ku nekk amul benn sikk sàkka ne nit ku nekk am nga jikko yoo xam ne ci la ñuy xamee yaay kan kon nag rafetalal say jëf rafetalal sa jikko rafetalal sa melo ndax ci la ñuy xamee yaay kan waaye dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg Cheikh Al Hadj Abdou benn chrétien daf ko xool ba yàgg ne ko man su ma doon jullit yaay doon sama sëriñ ndax jikkoom ju tedd ja ndax jikkoom ju baax ja macha allah ta'ala. mooy nag mu ne ko nag wa xaysu kunta fa qarrib lil janaabi ahan yaxuddu fi llahi awqaatan yuwaasika mu ne ko nag foo mën a nekk del jege koo xam ne dalay ñaax ci sa borom del jege koo xam ne dalay bàyyiloo xel sa boroom e eh waay gaañi ku bëgg a dem ca yàlla ku bëgg a yegg ci yàlla te doo am gàllankoor da ngay xool ña ña jëm ca yàlla ngay ànd ak ñoom da ngay toogaale ña bëgg yàlla da ngay toogaale ñay safoo seen da ngay toogaale ñay jaamu yàlla di ko sellal bu ko defee rek fa tabaarakallaahu nga topp ci yoon wa waaw mu ne wax xay su kunta foo mën a nekk fa qarrib lil janaabi axan na nga jegeñal sa wàll sa mbokk moo xam ne yaxuddu fillaahi daf lay ñaax ci yàlla awqaatan waxtu bu nekk o oh, waaye nag yu waa mu lay dimbali ci sa yoon wi nga nekk ndax kat yaxtaaju kullu jalisin min mujanasatin min al kon faxtar min man yu axika parce que inna tibaa tasruq tibaa jikko yi dañuy sàccante gis nga booy toogaaleeg ñu baax da ngay baax booy toogaaleeg ñu bon booy bon sax doo ko yëg booy toogaaleeg ñuy wax lu baax sa sa kaddu saa bu jugee lu baax ngay lay wax waaye booy toog ak ñuy wax lu bon di saaga ak xaste dangay ngay dema dem ba yàgg nga amee jikko jooju kon nag dangay ngay tànn ñu ngay toogaaleel di tànn ñi ngay àndal moo tax arab dañ naan wax ma sa xarit mu wax la yaay kan wax ma ñi kon fa tabaarakallaahu xarit dafa mat a tànn àndandoo dafa mat a tànn lii lépp alaaji Mansour waxoon na ko ko ne ko taxaaluful jinsi xaalan qad yadurru axi wa aasiman bi xuzuzi nafsi yurdika mu ne ko nag wutante xeet yi dafay lor parce que bu fekkente da nga da nga baax ki bon ngay ànd ak moom bu yàggee rek mën na la lor ndax dina la wàllu tuuti baax tuuti mbon boog laa bëgg a wax bu yàggee mu wàlli la tuuti mbon te mbon goog bu yàggee rek bu yàggee rek tabaarakallah la muy jur xam ngeen ko kon nag ànd la baax rek nga sax ci mbaax waaw mooy nag waaye nag na nga moytu nag koo xam ne daf lay xiir ci bànneexu bakkan koo xam ne dafa topp bànneexu bakkanam ba pare bëgg la caa xiir alaaji suur nee na Cheikh Alxaaji Abdu kooku moytu ko bul ànd ak moom bul ko sax jege waaye nag isa hamamta bi amrin fastatir fatinan yaxsha al ilaha laalla allah yahdika soo amee yitte nag ci def mbir ne na nga xool ascam nit ku baax ku ragal yàlla nga diisoo ci ak moom boo diisoo ku ñeme yàlla mu sànk la boo diisoo ku soxor mu sànk la boo diisoo ku añaan mu sànk la waaye boo diisoo ku ragal yàlla xol ba sell baax kooku boo diisoo moom mu teg la ci yoon kon rek waaye saa boo amee yitte pour def dara na nga diisoo yonent yàlla Muhammad ne ku diisoo doo perte ku diisoo doo perte kon lépp loo def na nga diisoo moo tax dañu naan dof piir mooy ki doy loo xelam waaw boo yaakaar ne sa xel mat na sëkk doy na ah, boobu nga doon dof nag te ku ku doyloo sa xel ah gaa yi nax la de kon nag diisoo lu am solo la mu ne ko nag wa man asa fa saamixhu wasil abadan min qaatiin haatikin bil xasfi yarmika mu ne ko nag képp ko ñaawal jëme ci yow jéggal ko waaye képp ku la abandonné bàyyi la jokk ko seet waaye képp ku lay xas waaye waaye waaye képp ku lay xas sax jël ko taf ko ci sa bopp mu ne nag wa sawwi ahlal xinaa wal faqri fiika wa man ata yazummu wa man qad kaana yutayika alaaji Mansour ne ko yemaleel milliardaire bi ak faqir bi borom alal ju bari ji ak ki amul dara ñëw di la seet si yemale waay waaye bu fekkente ne ki ñàkk moo jiitu milliardaire bi recevoiral ki ñàkk ba noppi doo recevoir milliardaire bi <laughs> waaye Alaaji loolu la dundee loolu la dund gisul xaalis Alaaji Abdu gisuloon sa boppam moom kenn rek ñi rek la gis yàlla la gis sayyiduna Muhammad ak jaamu yàlla yi ndaxam xam na ne al xalqu kullukum laa nit ñëpp ay ay jabooti yàlla lañu mu fas yéenee jaamu yàlla ci ñoom ndeysaan. wa man ata yazummu wa man qad kaana ka mu ne képp ku ñëw di la xas ak ki ñëw di la tagg yemale leen gaañi loolu yombul de fii nag jamono jin toll na moom gaañi ku leen di tagg la ñuy wër boo leen dee tagg daal yaa fi man doo morom gaañi yaay seen waal yaay seen waay waaye boo leen xasee ñàkk nga leen oh kii nag macha allahu taala dafa yemale woon ki koy tagg ak ki koy xas tabaarakallahu alaaji Mansour moo tax mu ne ko Cheikh Alxaaji Abdu taqiyun ku ragal yàlla la seet zahidun ku dëddu àdduna la lisaan wariun ku sammu la afifun ku fegu la naqiyun ku set la waaye xasanul fiaali xasanul fiaali saadiqun ku dëggu la waaye xasanul fiaali ku rafet ay jëf la loolu Sénégal gépp sédda nañ ko Cheikh Alxaaji Abdu boo ko bañee sax danga koy nëbb ndax boo ko fësalee doo xam foo koy teg te bu la laajee foo ko teg doo am lay moo tax soo ko bañee sax dang koy nëbb waaye ñëmewoo ko fësal parce que mbaaxam gi daa lëmbe jëfam yi rafet dafa tasaaroo ragal yàlla ñëpp xam nañ ko ni mu daan jàkkaarlook état di wax ak moom ci kaddug yàlla muy dugg ci xolu état ni mu daan jàkkaarlook population bi di wax ak ñoom muy dugg ci seen xol kooku la ko ko may mooy ragal yàlla ak wéetal gi mu wéetal yàlla ak gëm gi mu gëm ne kenn nekk fi ko dul yàlla seet moo tax alaaji Mansour ne malazun naasi fi diinin wa dunya xasida bii nag am na ñuy wax ne Mouhamadul Bachir ñang moo ko way ñu ne Alaaji Mansour moo ko way waaye en waaye lu mu mën a xew daal mu ngi ci diwaan bi mu ne malazun naasi moo nekkoon wéeruwaayu nit ñi moom Alaaji Abdou fii diinin ci diina ji wa duniya ak adduna bi waaye nag bazulun ku mën a joxe la ku mënoon a maye la duuna man te du la may ba noppi di la ñaax si te te te na waali ca may yamu lay may alaaji abdu bu la mayee du la may ba noppi du la ñaax waaye su la mayee rek nga giijal seet bu la mayee barke nga giijal bu la mayee alal nga giijal bu la mayee xam-xam nga giijal lum la may nga giijal waaye nag su jaaxul jàmbaar la pire la parce que ni mu daan waxee ku amul fit doo jàmbaar ñemewu ko waxee waaw sa jaaxun fi iqtiyaadin jàmbaar la ci ommatu gi mu ommatu jëm ci yàlla ndax bëri na nag ku départ nag jëm ci yàlla waaye nag yoon mett metti ga mu metti moo tax a dellu gannaaw wala nga dem ba yàgg commencé yokka di commencé bàyyeeku waaye tabaarakallah moom fa mu teg tànkam rek day xëy muy gën di yokk mais du wàññeeku mukk waaw waxtinaamin ilal islaami maa tarkil muhaali waaw ak yittewoo gi mu yittewoon jël boppam rek jëm ci lislaam ak bàyyi lépp loo xam ne dañ koo jomb waaw waaw macha allahu taala mooy nag jawaadun ku tabe la innahu baxrun xidammun mooy géeju xaayaan mooy géeju galasmaare géej gu fees dell la da zuwaari ci ñi koy ziyaare ba li fi nekk kay xasanul maqaali ku rafet ay wax la ah boo ko ziyaar see moom Cheikh Alxaajo xam ne xam ne kii mooy géej mooy géej ci xam-xam mooy géej ci wilaaya mooy géej ci tabe mooy géej ci lewet mooy géej ci yërmande jëf yu rafet mooy géej ci wax yu rafet mooy géej ci jëflante góor gu rafet foo ko natt rek fekk fu muy géej moo laa jamtu kasiirul awni ku bëri woon lu muy dimbali la xul waxal ne xammaalu kallin ku daan yenu ku daan yenu loru mbindeef yi la waaw waaw sey ala jamtu waaw jawaadun innahu baxrul xidammun kay wa huubun mayaakoon la duuna ojbin te du naw jëfam kulla xaali alaaji abdu di lay may lu seer te du sa gis boppam bu pare rek fàtte na ko waaye nag kasirul aw ni ku bëri woon dimbali la xul waxal ne xammaalu kallin ku yen waakoon ji coono la la da zuwaari fas ñi koy ziyaara si ñi ko daan ziyaara da nga daan fekk sax mu feebar wala ñu fekk mu sonn waaye lu ko mën a fekk ak lu coono yi bari bari bari ak lu nit ñi liñ ko sonal sonal sonal lépp la yenu bal li fi nekk xasanul maqaali ku rafetoon la ay wax du wax mukk ba nga yéeg ci wax ji ne da ngeen koo sonal wallahi ba nga yéeg ne wala wala nga yéeg ci wax ji ne moom dafa tawat wala dafa feebar dina ko muñ ba ñëpp dem chetttt waaye saburun muñ kat la bal li fi nekk xalimun ku lewet la ba li fi nekk safuuxun ku mën a jéllale la ku mën a baale la chettt alaaji abdu daal mel ni moom daal yombul waaye nag ku bëgg sayduna muhammad la daana wax naan inna xubban nabi bëgg ma bëgg rasulillahi xaalata laxmi daa jaxasoog sama yàpp bi xaalata isaami daa jaxasoog sama yax damma duuna riyaa daa jaxasoog sama deret ji te amul benn sikki sàkka du ngistal am ñu indi xaalata muqa dafa jaxasoog sama yuur gi duuna riyaa lii may wax ngistal daxul lu wér la sama deret bu dawoon boo ko xoolee gis ci bëgg rasulillahi sama yàpp bi boo ko gis ci bëgg rasulillahi sama yax yi boo ko tojoon gis ci bëgg rasulillahi moo tax mu ne xobbu taahan nabi sopp sayduna muhammad mii nga xam ne yàllaa ko soloo yónni ko ci jaam yi fard yi mooy sama farata wa nafli def naa ko muy sama naafila wa sharaab bi def naa ko muy ndox mi may naan ak ni ndox neexee wa muniyat yi def naa ko muy sama mébét ñii ñu ngi mébét 4-4 ñii ñu ngi mébét immeuble ñii ñu ngi mébét fu ne lu ne waaye moom li muy mébét rek mooy bëgg rasulillahi waaye nag wa xisaa yi def naa ko muy sama dund ba yàgg mu ne ko wa sax moom bayti mooy sama néeg bëgg njool màkk mooy néeg bi may tëdd sax foofu wa zamzam yi mooy sama ndoxu zamzam wa xatim yi mooy sama xatim wa maqaami mooy sama maqaama ibrahim wa marwati wa safaayi mooy sama safa ak marwa yasri bi mooy sama madina qubbati mooy sama qubba qubaaya waaye baqiya mooy sama baqiya uxud yi mooy sama uxud sufati mooy sama sell wa kanzu ghina ay mooy sama ndàmbu trésor hu moom bëgg njool maaka xilli mooy sama xilli masaaya mooy sama doxwaay baabu salaam yi mooy sama baabu salaam wa mataaf yi mooy sama kaaba gi may wër wa biiru xersi mooy sama biiru xersi xanaa yi o moo tax mu ne ko laa talum nii bul ma yedd waaw laa talum ndax fa inna nii fii xuyaami man dama bëgg njool màkk ba gëlëm te nag law mu misli ku yedd ko mel ni man sax mun tooñ la la dal uqlaa fas ñi am xel ku bëgg njool màkk moo la tax a jeex moo la tax di jooy moo la tax di misère ñooy yedd ah déedéet sa bàyyi daa waxoon ne më ndànkul aasili yow ma yedd law xusta boo làqoon tuuti ci xam-xam ilman tuuti ca xam-xam kon lam talum dooma yedd waaye hal azlu misli ndax yedd ko mel ni man ci bëgg gi ma bëgg rasulillahi lam yakun nekkul bi xaraam yi oh ñii ñëw bëgg sayduna muhammad jeex takk ci moom macha allahu taala kon fa tabarakallahu yàlla nañu yàlla taf ci barkem yàlla nañu yàlla taf ci barkeem cofeel gam amuñ ci rasulillah yàlla nañ ko yàlla defal borom la 14 septembre tabarakallahu borom ñaari set yi macha allahu taala mu jox la set set macha allah taala moo tax sax boo xoolee réseau yi set set yi ëpp doole orange moo ëpp doole Tigo moo ëpp doole Expresso parce que ñaari set la am kii am set 6 kii am set 0 ki boole ñaari set yi moo ëpp doole Cheikh Al Hadj Abdou boole ñaari set yi muy 14 septembre parce que tabarakallah kon góor gàngoog yàlla nañu yàlla taaf ci barkeem wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.